bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent tàmba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw leen ziar bu baax ñu ñëwee seen naafila ba tey ku julli guddeeg juróom ñetteel ba ku julli guddeeg ba ñaari rakka rakka bu ne faatiha benn yoon xul wala ahad fukki yoon ak ñaar bu dee juróom-ñetteel ba ku julli ñaari raka raka bu ne faatixa benn yoon pour walaaw axat fukki yoon ak ñaar yàlla dana ko bindal ciw yiw xaraf yi muy jaamoo yàlla junni at mel na ni ku dundal xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi ci lekk ak naan waddu leen diirub juróom ñaar fukki xat dana am yoolub ku goreel junniy nit ci doomi Ismaayila yi alayhi salaam danañu ko nangul ay ñaanam fa boroom borom dana taxaw bàyyi ko ci armelam ànd ak leeru kanam ak gannaaw dana jéggi siraat mel ni kuy melax dana ram juróom-ñaar fukki nit yoo xam ne dana war a dem sawara kon loolu mooy naafila gi tey wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh